fitna ya am ca Touba am na benn Baye Fall nag bu ñu fa dóor bal ba mu faatu drame bi nag mi ngi am ci guddi talaata bi jàpp nikiti ji ba yi moo fukki fan ak juróom-ñetti fan ci weeru novembre ca Touba benn opération jëm ci wàllum respecté lépp li nga xamante ni euh, sëriñ bi dogaloon na ko fa foofee ca biir Touba waaye nag mujj na viré au drame ndaxte xibaar yi buñ koy joxee ci ginnaaw ba ñuy sukkandikoo ci suñu naataango waa Seneweb ñu ngi préciser ne ginnaaw ba ñu amal ñoom nu ñu jëfee ndigal bi nga xamante ni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wax na am na kenn ku ñu dóor fa bal ba mu ñàkk bakkanam kenn ka nag dafa gaañu gaañu yu métti jàppante yu am ca tuuba opération bu ñu doon amal moo ko waral ndaxte lu yàggul dara ah, Serigne bi dafa dogaloon lépp lu jëm ci football ak lii di politique nañ ko fa bàyyi ca bërëbu Touba tax na nag mu jëloo lépp teg ko ci loxo yi ñi nga xamante ni ñooy Baye Fall waaye nag saa ñuy def nag seen opération yooyu ngi saytuwaat askan wi ñu fas yéene nag na tëdd ci ne rek ñi nga xamante ne euh, sëriñ bi jot na ko ginnaaw bi nga xamante ne Baye Fall yi nag amal nañ seen opération tàmbale nañ ko wàcc nag ci benn quartier bu ñu naan Firdawsi foofee nag ci sur place ñu fekk fam ñoo xamante ni dañuy jaay ay yamba waaye tamit lu jëm ci chanvre indien opération boobu ñu daal di si euh, àddu nag ci ñooñu nga xamante ne ñooy jaay yamba ak ñoom Baye Fall yi fitna gu métti moo fa juddoo kenn Baye Fall ba ñu tiri ko bal ba mu ñàkk ba kanam kenn ka nag daanaka mu ngi diggante ci dund ak dee ci noonu nag si la ñii di ñuy ànd ak ñi nga xamante ñoo bay ubbi nag saf safara bi ci kanamu ñii di Baye Fall yi Moustapha Dieng nag juddu ci atum 1988 nag moom moo daal di recevoir benn bal boo xamante ne rek ci euh, xoj bi la ko daal di dal keneen ki nag beneen Baye Fall bi dafa am gaañu gaañu yu métti ba tey yu bëri ci ay euh, coup de feu maanaam ay balu fetal ñu tiire ko affrontement yi nag doon na violent waaye nag nemmeeku nañ ci ba tax gendarmerie ak police jotoon na ñëw ngir mën a la ñu fàtte Baye Fall bi ak kenn ki nga xamante ni jotoon nañ ko gaañ ba tax na nag jamono ji Baye Fall yi nag dañoo riposté ni na nag segem kenn ñoom ñàkk na bakkanam faw ñoom ñu daal di addu ànd dal ci kaw ñi nga xamante ni ñoom la fas yéene nag di jaay yàmba ba tax na nag gendarmerie dafa mujjee utiliser sax grenade lacrymogène ngir mën a des disperser nit ñi jot nañ ci teg loxo fukk ak juróom-ñaar fukk ak ñaari nit ñoo xamante ni daal jàpp nañ ne daal ay suspect la kenn ki nag ab ratissage la fukki ak ñaari yi doon ñoom entrepreneur nit ñi di folie police ak gendarmerie teg nañu loxo koor ki nga xamante ne nag mooy Moustapha Niang mi nga xamante ne fanweeri at ak juróom la am euh, moom mi faatu ginnaaw bañ ko dóoree ab balu fetel moom nag néewam yóbbu nañ ko ca mor bu hôpital bu Matlaboul Fawzeyni euh, bi ki nga xamante ne mooy Baye fal bi gaañu bi nag jot nañ ko moom it évacué loole nag moo xew a euh, jamono ji ca Touba diggante nag ndaw ya fa nekk ca benn quartier bu naan Firdawsi ginnaaw dogal bi sëriñ bi jël lépp lu jëm ci football ak lu ajowul ci Touba nañ ko bàyyi bay fal Fall yi nag seen descente boobee jur na jéeya ndax kenn ñàkk na ci bakkanam te ñoom nag nee na faw ñu riposte rekk dal ci ñi nga xamante ne ñoo faat kenn.